lu toll ci téeméer ak juróomi defekaayu mbalit la daayira bi di xidmatul xadim bi nga xam ni ñooy seetal lépp lu wër jumaay tubaa ji doon dalloo ci alxamis ci dëppoog le 19 20 2022 ci jumaay tubaa ji poubelle bi lim bi mi ngi tollu ci 104 lim bi nag lépp nag mi ngi tolloon ci 105 waaye Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké 105 boobu biñ ko yëtee doon ko gaar liggéey ba mu ko xoole bu noppi moom moo sàkku bàyyi ko booba ñu bàyyi ko benn bi mu des 104 kon 104 moo des tey jii fii ci PPN bi. ci atum la daayira bii di xidmatul xaddim fàgg woon ay defukaayu mbalit yoo xam ne këwusa la woon waaye naaj wi da koy yàq loole moom moo tax ñu xalaat yoo xam ne mën na yàgg ci naaj bi ñu def ko inox yi ñu am nag ñu ko liggéeyee ci réewum Italie. 2019 ñu waxtaanaat ñu nañ xoolal yan façon lañu war a defar ci wàllum poubelle yi. bi ci bureau bi ci Touba tënkee ñu ànd ci Armignon ñu dugg ci dëkk bi Touba wër bi ñu wëree gis ñu matière bi ñu bëgg ñu am ñu yebal Dakar gis ñu matière bi ñu bëgg ñu woo mbokki xidmatu xaddi bi nekk diaspora ci njiital sëriñ Mourou Kara Gueye mu ànd ko Serigne Aïdara Diang ak mboolem diaspora bi ñëpp ñu wër ko ci diaspora bi ba gis fa matière bi muy matière enox ca Italie bañ ko fa gisee tamit ñu yóbbu ko ci usine ya nekk ca itaali li ñaan sëriñ bi moom képp ko da wuti ko mu gàtt loolu ak boppam ndax usine bi nga ko yóbbu nañu ko liggéey mbokkum Sénégal mu nga ci usine bi di liggéey ku ñuy wax ay dara Wane nga xam ni moom mooy def à sars jël poubelle yëpp yóbbu ci usine bi ñu dagg ko complète ko ba mu àgg bi mu àggee ci mit mu des ensemble ñu yabal ñu ko ci conteneur mu ñëw fii ci Touba bi mu dikkee Touba ci mit Xidmatul Xaddim daa manqué dara ci ay jumtuwaay min si mitaal yi xam ñoo nekk ci biir Xidmatul sëriñ Fallou Diaw ak Baye Siyax ñu yóbbu ko seen atelier ñu ensemble ko fa fii ci Touba. mboolem ñi nga xam ne ñooy romb ci barab bi li wër jumaa ji ñu ngi leen di ñaaxaat bu baax ñu bàyyi xel ci barab bi ak sàmmonteeg ceet gi. kon ñi ngi sàkku ci ñas yaa dugg ñooy wër jumaa ji ak ku fi jaar ak ku mën a doon. Mhm. lépp loo yor muy jumtuwaay ndax li fi dajee moom indi fi boppam dañ ko fi indi moo xam kopp asital wala mbuus koo ci amati indi lañ la foo ko mën a def soo ko defeet am ko jël siwaat war ko yóbbu fa mu dëkk ndax ku baax da doon wax naan mbalit de bu bëggee noppul day jege ab sën kon nag lii mbuusu toile nañ fexe ba fu mu dëkk ñu yóbbu ko fa loolu mooy indi jumtuwaay yi di wax ne nag matière bi ñu ko liggéeyee inox la ñemenaw tàngoor du xumaak ñemenaw ndox leen rek la ñuy mooy loxo boo xam si nii da koy fekk fa mu nekk boo ko faa jël yóbbu fa mu dëkkut. UCG di kuréelug nguur gi nga xam ne day yëngatu ci lépp lu jëm ci wàllu mbalit seen bànqaas bi nga xam ne moo nekkee fii ci Touba ñoom rafetlu nañu bu baax ni xidmatul xadim di doxee ci wàllum setal lépp lu wër jumaay tubaa ji te ñoom nee ñu daañu leen jàppale ci liggéey bi. ah UCG di deful lu rafetlu lii ndax UCG moom la état jox mu war a neta seetal réew mi bu ñu nee ba ñëw ci dëkk bu mel nga xam ne Serigne Touba euh, ñi engagé wu nañ da looy def rek nit ñi la koy gën a bëgg ñu fekk fi ne force sociale engagement bi murid yi am nii ci dëkk bi UCG bu fi ñëwee day gën yomba yombal liggéeyam ah cérémonie bi associé nañ ci ñoom bi ñu def lenn lu ñu boolewul vraiment collaboration rafet na trop bi ñu suba waxtaan nañ ci ak sama sama coordonnateur ba ne nañ ñëw tee ci teewaay bi ñun tam fas na yére aussi lépp loo xam ne day améliorer système bi ni ci ramassage beeg lépp dañ ciy nekk présentement am nañ équipe boo xam ne bu ñu xëyee ba 15 heures ba 14 heures dañuy wër jumaa ji à 17h am na ñenee ñu gont fi mu ne nii ba 21h ci jumaa ji bu boobaa tamit léegi ah, euh, enlèvement bi ñoom ba 14h ñoom danañ ko assuré à partir de 17h ba 21h lu fa nekk danañ ko assuré am daal di ñaan rek mu jëm kanam. Serigne Abdou Samad Mbacké moom Serigne Souhaïbou teewe woon na jotaay bi moom mu lu bu baax a baax liggéeyub Xidmatul Xadim ak defukaayu mbalit yi nga xam ni ya gën a baax lañ fàggu indi ko fii ci Touba. ngeen tànn la gën a baax. ngeen tànn la gën a baax. la la gën a valoré. la gën a valoré. andil ko sëriñ bi ci jumaa ji. indil ko sëriñ bi ci jumaa ji. kon yéen tànn tànnee fi sëriñ bi ngeen. kon nag loolu li muy firnde mooy tànnee fi sëriñ bi ngeen. kon nag na ngeen sant bu baax. kon nag na ngeen sant bu baax. képp koo xam ne it yaa ngi gis lii. képp koo xam ne it yaa ngi gis lii. te bokkoo ci woon. te bokkoo ci woon. maa ngi lay ñaan nga jëm cee bokk. maa ngi lay ñaan nga jëm cee bokk. ku ci bokkoon. ku ci bokkoon. nga jaajuwaat bu baax. na jaajuwaat bu baax. te góorgóorlu. te góorgóorlu. ndax set. ndax set. sëriñ bi daf koo bëggoon lool. sëriñ bi daf koo bëggoon lool. yàlla dafa setal jëmm ji. yàlla dafa setal jëmm ji. ci biir ak ci biti. ci biir ak ci barab bi muy toog. ci barab bi muy toog. ci ay yéeréem. ci ay yéeréem. ba ci léppam. ba ci léppam. ba fu mu mas a toog. ba fu mu mas a toog. doo gis dara lu taq. doo gis dara lu taq. bant sax doo gis. bant sax doo ko gis. kees gépp dañ koy maasale. kees gépp dañ koy maasale. dañ koy lay. dañ koy lay ba mu set wecc. ba mu set wecc. daayira xidmatul xadim mi ngi juddu ci atum 2010 seenub liggéey mi ngi jëm ci setal lépp lu wër jumaay Tuubaa ji. xidmatul xadim lii ab liggéeyam mooy jumaay Cheikhina Ahmad al Xadim bi tedd ji di bërëbu boppam mu nekk fi ak boppam ak mboolem njabootam gi. bërëb boobu la xidmatul xadim di def guddik ajjuma gu jot bu min wi ci guddi jotee ca baawam wala bu dee léegi wenn deux ci guddi fu mu jotee mbooleem ku bokk ci liggéey bi ñëw ñu wut bale ak tonnikaay ak buret mbooleem lu fiy nekk di nuru luy nuru ay taq-taq ci saahir ci lu ñu tuddee mbalit ak suuf suy nekk ci tali bi yépp ñu bale ko ba mu set ni ko balaa fajar ba nga xam ne buñ xëyee ci fajaru ajjuma genn mbuus goo xam ne ni day daw wala muy taxawaalu ci bitu jumaa ji nit du ko fi mën a gis. li wër jumaay Tuubaa ji yëpp takk nañ ci defukaayu mbalit yi bëgg kenn ku ne di sàmmoonteeg cetoog barab bi te képp ku yor lu bëgg sànni def ko ci biir poubelle yi.